ci diineeg lislaam waaw wala déet moo waxal tey jii ñu dalal Oustaz Gora Diop bokk ci kër gi daañu waxtaan ak moom ci lépp lu soxal euh, gàmmu gi wante tamit ci yeneen i ponk yoo xam ni soxal na actualité bi Oustaz Gora ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax soxna Ndeye Comba. Mm-hmm. di la delloo nuyoo waaye di la ziyaare tamit ci fan yu tedd yi macha allah. Mm-hmm. oustaz Gora laaj bu njëkk buñ lay laaj moom mooy euh, ñu ngi amal li ñuy wax gàmmu màggal euh, guddi gi nga xam ne euh, yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la gane si àdduna idée boobu naka la ñëwee bañ koy def tey. waaw soxna Ndeye Comba mhm. gàmmu moom euh, gàmmu dafa am solo euh, ndax euh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo jox gàmmu importance ndax lu yàlla bind rek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon boo xoolee gàmmu ak niñ koy defee ak fi ñu koy defee fépp ak bis yaag weer yaag guddi yaag yépp li muy wane rek mooy ki nga koy defal màggaaye moo toll noonu xam nga Ndeye Comba dafay jege rek bu baax a baax bu leer a leer. Mm-hmm. maa ngi la tey jii euh, defe naa ne Sénégal Sénégal ñu fi dëkk ñëpp ay citoyen lañu mais est-ce que président de la République su waree génn war a def tournée ci biir réew mi est-ce que dina yem a ku dul président de la République war a génn def tournée ci biir réew mi est-ce que xalif général. moo xam bu Tijaan moo xam xalif général de Mouride. Mhm. moo xam xalif général Laye moo xam xalif général Ceneba moo xam Ndiassane. Mhm. est-ce que ku ciy dina yem ak benn euh, citoyen simple rek buy génn. du mën a yem. mënul tax nag. Mhm. yàlla suba subhaanahu wa taala moo yemalewul. ndekk ma sa baaraam yi loxo yi sax. boo ko tàllalee dina am benn bu gën a dina am benn bu gën a léegi nag yooyu yëpp nag ci ngëneel yi moo xam ngëneel ya ca président de la république moo xam ngëneel ya ca euh, xalif général moo xam ngëneel ya ci citoyen bi euh, simple bi moo xam ku mu moo xam ba keroog sa xalaat fu mën a yem la ca baax yëpp yonent bi sallallahu alayhi moo tax yàlla bind ko donc lépp lépp lépp yàlla nee na maa ko bind ngir kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. su dul woon yonent bi sallallahu alayhi moo ne kon du bind dara. Mm-hmm. Maam Seydi Hadji Malick tënk ko ci benn téeréem wax ni wa maa xalaqa arrahmaanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmudi wa huwa habibu waaw yàlla Seydi Hadji Malick ne yàlla bindul dara pour boppam lu mu bind rek mhm. yonent bi sallallahu moo tax kon kooku bu amee bis boo xamante ne ca la juddu ñu remarqué ko vraiment dinañ ci fexe ba lépp loo xam ne lu koy yëkkati la lu koy màggal la comme yàllaa ko njëkk a yëkkati yàllaa ko njëkk a màggal ñu tamit ñu yëkkati ko màggal ko ko defee nag suñu duggee ba ci biir. Mm-hmm. dinaa la jox firnde yu leer nañ yoo xam ne. Mm-hmm. Euh, ki nga xam ne xamul te bëgg a xam danaan fii kon dañu teg gàmmu mu leer nañ incha allahu ci alquranu karim ju leer nañ wax yàlla. Mm-hmm. waaye tamit ci xadis rasul sallallahu alayhi wa sallam ju leer nañ soxna Ndeye mais am na ñuy wax euh, foofu sax la ñëw directement oustaz. Euh, mm. que gàmmu biddaa la dañ koy faral di dégg. Mm-hmm. est-ce que yow loolu danga nga koy dëggal waaw mm-hmm. wala déet est-ce que bokk mm-hmm. na euh, ci loo xam ne bind nañ ko ci la Coran wala feneen ak feneen en tout cas est-ce que lan ngay tontu en fait ñi nga xam ne dañuy wax ne euh, euh, gàmmu biddaa la waaw soxna xam nga gàmmu baat bi la ñu tuddee gàmmu muy baatu wolof mais biddaa dafa ci lislaam bidaa nag dafa am a maanaam bidaa boo xamante ne nii bu bu baaxul la bu ñaaw la bu bon la ak bidaa xasana même bu ñu ko doon qualifié bidaa da ngay jàpp ni bidaa xasana la mooy bidaa bu rafet la. Mm-hmm. te ndeykum ba gàmmu i tax man bokkuma ci ñi d'accord ni bidaa la donte nag même suñu sëriñ ñi bind lañ ko mais li tax man d'accorduma ni bidaa la. Mm-hmm. mooy ki ko tàmbali da koo tàmbali mais ci lislaam la ko fekk. bidaa mooy loo xamante ne nii musta am kenn musu ko xam nga ñëw créer ko sa bopp. Mm-hmm. ak bidaa mooy lu ñu sos. loo xam ne kenn amul cëslaay ci lislaam bu boobaa nag dañ naan lii bidaa la waaye. Mm-hmm. ndey ko ma bu ñu demee ci alquraanu karim yàlla subhaanahu wa dafa wax benn ay alquran bu leer nañ euh, daf ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu Mm-hmm. sallu alayhi wa sallimu taslima alxuraan la mm-hmm. yàlla def ne man yàlla mi bind Muhammad bind leen yéen man damay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom yàlla moo ko wax de man ak sama malaaka yi malaaka yëpp tamit dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ba pare ni yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla kon sallu alayhi julli leen ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yéen bu ngeen jullee yéen da sëlmal xam nga jullit yàlla moom amul fu muy yem mais jullit jullit yi moo ni leen sallu alayhi julli leen ci yonent bi wa sallimu te ngeen sëlmal waaw léegi ndey kumba hmm. ku màgg ba yàlla di julli ci moom te xam nga sall mooy julli mooy ñaan lay firi ñaan ñaan hmm. waaw maanaam boo julli ci yonent bi sax mooy da nga koy ñaanal dëgg la ndey bu ñu ñëwee Tiwaawan lan lañ fi def ñaan ay ñaan xoolal booy jàng tey salaatu salaatu salaatu salaatu boo mën a jël hmm. boo nee allahuma salli ala sayidina muhammadin il faatixi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiri l xaqi mm-hmm. bil xaqi wal haadi ila siratika al mustaqim mm-hmm. wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim gis nga yooyu ay martaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi gën a kawe lay wane mm-hmm. te ñaan la dañ koy ñaanal ah allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfaatixi yàlla yàlla nga dolli xéewal sayyidina muhammad mi nga xam ne alfaatixi li maa uxliqa ci barkeem ak leeram ci ngay ubbee lépp loo xamante ni nii tëju woon na wal xaatimi li maa sabaqa mm-hmm. lépp loo xam ne jiitu woon na ci mbaax yaag yonent yaag ñoom ñëpp moom moo moom moo leen ndarkeeb moo leen mottali mooy mm-hmm. xaatim bi muy xaatimu nabiyyiina bu imaam mursalin mm-hmm. naasiril xaq bil xaq dëgg lu mu nekk nekk dëgg yonent bi sallallahu alayhi moo koy dimbali ba dëgg gi mën a wér mhm. wal haadi ila siraatal mustaqim wal haadi mooy jubal moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku doon ila siraatikal mustaqim sa yoon wu jub wi ni coow yow yàlla jëm si ci yow mhm. wa ala alihi ak mbooleem e, njabootam wa sax bi ak saxaaba yi ñoom ñëpp xaqa qadrihi wa miqdaarihi azim ci dëgg-dëgg kemtalaayu màggaayu darajay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa miqdaarihi azim ak darajaam kemtalaay bi nga xamante ne màgg na ba kenn xamul fu waaw te tijaan yi loolu la ñuy werd eh, Ndeye Comba mm-hmm. waaw boo demee boo demee ci ci ñaseen yi loolu la ñuy werd mm-hmm. boo ñëwee ci gàmmu lépp loolu la ñuy jàng burdu bii ngay dégg mawlaaya salli mm-hmm. wa sallim daa iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi ñaan la mawlaaya yow suñu boroom yow yàlla salli yàlla na nga dolli xéewal ak mbaax salli wa sallim ala uh, mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan daa iman mooy chaque jour abadan ba faw yàlla na nga koy dolli xéewal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kan mu ne xabibika ci sa soppe bi yow yàlla xayri xalqi kullihim ki nga xam ne moo gën ñëpp mu def yëpp moo leen gën ndax yow yàlla yaa ko wax ndey kumba loolu nekkul argument mm-hmm. waaye ma jox nag beneen bu gën a leer mm-hmm. ni ko ma boo demee ci alquraanul karim waaw yàlla daf ne baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaasiin wal quraanil hakiim innaka la minal mursaliin ala siraatin mustaqiim tanziilal aziizir rahiim li tunzira qawman maa unzira aabaa'uhum fa hum gaafiluun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum laa yuminuun léegi nag ndéeg ma bàyyil ma point bii ma lay wax jàppal ma ko mm-hmm. inna ja'alna fi anaaqihim aghlaalan fa hiya ila azqaani fahum muqmahuun wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min xalfihim suddan mm-hmm. moo tax fa aghsaynaahum fahum laa yubsiruun mm-hmm. léegi nag wa sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun innama tunzira man tabaa li zik man tabaa zikra wa xasiya rahman bil ghaybi fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dégg nga boo gisee ma indi loolu yëpp dama bëgg ñu xam ne li wax dama bëgg ñu xam importance wu kay kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. yàlla moo giñ ci alquraanu karim yàlla de moo giñ ci alquraanu karim wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaasiin yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal quraanil hakiim maa ngi giñ ci alquranul xakim innaka yow muhammad la minal mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi nga xam maa leen yónni ala nga indi yoon wu leer naññ yoonu lislaam tanzil azir rahim mi ngi jóge ci borom bu màgg muy yàlla te tunzira ngir nga waar xaw man nit ñoo xam ne maa unzira abaahum foom xaafiluun hmm. lañu leen waaroon ci seen wayjur yaag seen papa yaag ñëpp dañoo sàgganoon ba kenn mënta jaar jub ci lislaam ah. dëgg la. léegi tey Mouhamed ñëw pour def loolu. Mhm. la xar xaqal xaw ala akthari fahum laa yu'minuun bëri na lu ñuy wax ak ñoom di leen wax kan mooy Mouhamed kan mooy mbaax kan mooy yiw lan mooy yàlla yan lan mooy alxuraan waaye duñ ko gëm léegi nag yàlla nee na inna ja'alnaa fi a'naaqihim aghlaalan man maa def ci seen doq yi ay chaînes yoo xam ne safara la bokk ay jéng ay manot fa hiya ilaa rizqihim muqmahuun Mm-hmm. gis nga jéng yooyu ci safara la nekk yàlla nee na ëllëg ñoom laa koy jénge ñoom ñi lànk ba a gëm gis leer bañ a dégg léegi nag woo jaxal na mbay ne ay suddan waxal fi suddan faxsiran foofu lay suru ñoom daal ay défense ak i ay lu ne lañ def seen ginnaaw yi ci seen kanam seen ginnaaw mm-hmm. amuñ fu nu ma jaar ba ya ba jaar ba yàlla nee na du leen lakk loolu lañ naan wiiri wiiri jaari ndaari dëgg la léegi nag euh, yàlla nee ñii nga xamante ne ñoom lay wax man maa muur seen bët yi innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fii adqaanihim fawqa maqmahun wa ja'alnaa min bayni aydiihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum laa yubsiruun wa sawaa'un 'alayhim mu ne Muhammad yaa xam anzartu ndax waar nga leen am lam tunzir wala waaroo leen laa yu'minuun ah innamaa tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmaan bil ghaybi ki ngay waar mën a dégg mooy ki nga xam ne day déglu lu baax day déglu alquraanu karim di fàttali ko suñu borom bu ñu ko waxee xol ba mën a am leer mu gëm. Mhm. mais ñii nag mënuñu ko parce que inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fi a'naqihim maqmahun wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa qila wa salamun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzira man ittaba zikra wa xashiya rahmaan bil ghaybi fa bashir maghfirati wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu maa qaddamu wa aathaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin gis nga yàlla nee na ndey kumba mhm. gaa yi ba a dégg lu baax bëgguñoo dégg waxi gàmm bëgguñoo dégg ñu ne yonent bi dañ koy màggal yàlla nee na bu leen jaaxle ci ñooñu parce que maa tëj seen xol yi maa ko kaste leer du ci dugg maa fatt seen nopp yi dinañ dégg waaye duñ dégg lu baax lu leen neex rek lañ bëgg a dégg nee na maa fatt seen seen bët yi ba du ñu gis leer du ñu nangu dëgg kon nag bu ñu fàtte ni bu ñu nee senegal ñëpp a ngi gàmm boo demee Tivaouane ñu ngi gàmm boo demee Touba ñu ngay gàmm Kaolack ñu ngay gàmm Fouta ñu ngay gàmm ci kër maam Cheikh Oumar Fouti yi waaw Ndeye est-ce que kilifa yi yëpp mën nañoo ànd trompé wala ñu juum. déet ah. ah na waar. ba pare alxuraan ji nekk fi nii. Mhm. kon nag nañu nangu benn benn ti nit yi nga xam ne dañuy taxaw di wax ne gàmm wuy bidaa la gàmm dañ ko sibëg gàmm dañ dafa xaraam ñooñu ñoom la yàlla wax ne damaa tëj seen xol mënuñoo xam leeru dëgg. Mhm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa lu ko waay defal ci lu baax yàlla ne na ma fay la ko ah yàlla lu mu waxoon lu mu ñu wax. Mhm. walakum fi rasulillahi uswatun xasana. roy leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy bu leer. Hmm. mooy seen royuwaay bi gën a rafet roy leen ko ci lu mu def waaye yonent bi wootewul. dëgg la est-ce que wootewul dugal ci lislaam hmm. ah. dëgg la. ah oustaz léegi euh, jullit bi. Euh, moom naka la war euh, amalee euh, gàmmu gi maanaam naka la war a euh, màgg euh, màggale guddik gàmmu guddi gi nga xamante ni yonent bi ci la gane si àdduna lan la war a def exactement ci guddi googu waaw en tout cas loo ci def ci ñaan baax na gis nga maam Seydi Hadji Malick mi nga xam ne mooy sunu waajur mooy sunu kilifa mooy sunu sëriñ ci moom lañu royee gàmmu ñaari version laa la ci wax leer nañ gàmm gi mu njëkk a def moog maam alxaaji rawxaan ngom bu paal ñoo ko def keroog kaamil alxuraan bi ma ngi nee nañ moom lañu séddoo ci digg bi maam alxaaji maalik jàng benn xaaj maam rawaan jàng benn xaaj bi ñuy noddu fajar seen kaamil jeex ñu daal tëj kaamil bi daal di julli fajar sëñ xaaji maalik daal di ni hakaza yakunu nii laa bëgg mu koy doxee dala cay teg ni feeg yéen a ngi am kaasu ndox bu ngeen jox nit mu naan ko na ngeen koy màggal léegi tey gis nga tey defe naa ne ay camion camion yi ndox ñoo jóge fu nekk léegi sa forage bi euh, dañoo mujj sax la dégeer bi la ñu branché ci ndox mi macha allah foo jaar kon kaasu ndox boobu mu waxoon xam nga di barkeel na beneen bi ci des mu bind moom Seydi Hadji mali ci ngëneelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fii taazimi injaaxa sujuni nee na wa mawliduhu juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bihi nekk na ca sharafun lépp luy tedd nga wa xiirun ak yiwutaan neef fa fi taazimi nekk na ca màggal juddu ga te mooy di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi ji injaaxa sujuni fajuk aajo boo ko dee boo boo ci dee def say julli say naafila jaamoo ko yàlla ñaanal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yiw Seydi Hadji Malick nee na yàlla dalay fajal say aajo waaye bi ci des mu digle ko ni ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu ala boo xamal ma xamal la yow mi may déglu ne azimu màggal leen yéen jullit yi yépp laylal wiladati guddug juddig sallallahu alayhi wa sallam guddi mu juddoo mooy guddi xesbatan ànd ak sàkku tuyaaba mhm. isaalam yëkkul su fekkente ni nekkul moom màggal guddi ga naxwal xaraami jëm ci lu xaram odulu jëng jëm ca waaw màggal leen ko su fekkente ni wóor na leen ni li ngeen ciy def du ca def lu lu lu xaraam ca def lu xaraam mhm. noonu la ko Seydi Hadj Malick jàngale ndekku ma mhm. waaw kon waaw màggal gi wala wala gàmmu gi mooy rek toog di jàng ay salaatu ala nabi julli julli ci Yonent sala d'abord gis nga Tiwaawan bu nee weer wi feeñ na. Mhm. ñuy jàng burdu defe naa bi ko bu baax. waaw mu nekk lu am solo ñu bëgg ñu ko fekkee. <laughs> ñu bëri bëgg ko fekkee parce que. Mhm, mhm. Muhammadul Busayri bi ko way. yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko jagleel ba mu jeex ndax moom dafa feebaroon. dëgg la. feebar boo xamante ni demoon na ba paralysé mënatul dara ba yaakaar ni day génn àdduna mu daal di def euh, tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa rek daal di ne ah, diko ko di xalaat ba ci yàgg mu ni daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa xam rek nga ne xam ni am ab mën naa mindeef la. Mm-hmm. munoo wax leneen ndax lépp sharaf yëpp mérité na ko mooy fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun daal di yem foofu gàtt. Mm-hmm. te bu ci feebar bi de ndeysaan mu tëdd guddi rek ci bis bi ko waxee noonu. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni cëpp ci kanamam. Hmm. daal di koy fëgg mu jóg mu daal di teg loxoom ci bopp bi raay ko ba ca tànk ya feebar ba wér ci saasi yonent bi tek ci ni ko nag wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi way wi nga tàmbali woon ba ni dayoo xam-xam mooy wax ni Muhammad daal mindeef la waaye na nga xam ne mindeef yëpp moo ci gën yonent bi moo ko yokkaloon ni ko na nga xam ni wa wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi nanga wax ni mbindeef yàlla yëpp moo ci gën daal ni mes dem yoonam mu xëy rek. Mhm. daal di commencé taalif burdu daal di commencé dë dël xasalam. dëgg la mooy euh, burdu bi nga xam moom la ñuy def ko ay bunt. Mhm. muy fukki bunt. Mhm. Seydou Hadj Malick ni kon fukki bunt yooyu bu weer wi commencé bis bu ne nañ jël benn bunt. ba fekkente ne fukki fan yi njëkk yi jeex na ñu noppalu fukk ak benn fukk ak ñaar nekk gàmm. loolu moo indi burdu boobu ñu ciy woy bu fekkonte ni waxtu yaatu na sax daan la ci dugal bu baax a baax ba nga xam ne lépp lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la donc gàmmu ndeykumba génnul yonent bi génnul yàlla nee na génnul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na génnul di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. la kon loolu nag. Mm-hmm. ku ku ko ku ko jéem a dàq wala nga koy jéem a. da ngaa euh, xamul. da ngaa <laughs> xam non dañuy xam ba pare. Mm-hmm. waaw yor non dañoo kaste ñoom lañ kaste seen xol yi. Mm-hmm. il faut ñu nangul leen ko nag parce que xam nga yàlla dafa tudd nit ñëpp ku leen wax sa qualité. Hmm. mais da ci am ñoo xam ne ñoom dañu leen kaste dañu kaste seen xol yi du ñu dégg dégg kaste seen nopp yi. Hmm. dégg ko yàlla naan ko fii aazaanihim waqra yàlla nee na seen nopp yi dama ci def appareil yoo xamante ni bu ñu baax dañ koy bañ. Hmm. xool leen rek bi xam nga léegi nit ñi dem nañ ba yeewu mais Sénégal boo xoolee dix ans ci ginnaaw gars yi commencé woon nañu fi dugg fi. indi fi ay sikkim yu gudd indi fi cëkk yëre yu cëkk yu kenn xamul ba pare du ñu sangu ba pare lu ñu wax ñu diingat ko. ba pare ñoom mënuñoo dajale ñett ñetti nit xam nga lu ñuy def dañuy ñëw ci koñ bi kotuwaay jàkka ji di dugg ci jàkka ji. Mm. yor seeni kaamil. Mm-hmm. dugg ci jàkka ji di di di di waxtaan ak paa yi ndànk-ndànk wala dañoo jàng bañ fal leen imaam. Mm-hmm. wala ñu jox leen pour ñuy mën a waaraadi ci biir jàkka ji. bu ñuy ñëwee ci biir jàkka ji ci la ñuy profité di wax ak ñoom waaye tey ni maam Seydi Hadji di waxee ne ñëw leen ñu gàmmu Tiwaawan oto yëpp fëx xam nga ñoom mënuñu ko. Mm-hmm. gisoo fi Pikine di di contre sunna mhm. di contre mag ñi nga gis ko mu mën a dajale fukki nit. déedéet day bàyyi ba événement jot rek mu jiite jóg àjjuma ne ci xutba bi lu leen wax ko lu ko neex mu mhm. xam ne nit ñi xam nañu moom indiwu leen fa. àjjuma julli ba ñu julli si moo leen fa indi. wala ñu ñëw korité wala tabaski ñu bàyyi ba ñu ne weer yi feeñ na wala suba lañ koy seen ñoom ñu ne dañuy dañuy tabaski wala dañuy julli. te waxtu yi nga xamante ne nii dañoo rawante boo bëggee kot Màkka bëgg a jullee Sénégal boo ko defee man maa la wax ne amoo julli parce que ba day fekk waxtu yo génn ñu rawante juróom-benn waxtu mën nañoo ànd ci benn heure inna salaata kaanat ala mu'minina kitaaban mawquutan mm-hmm. yàllaa ko wax yooyu dafa am ay heure mais boo gisee ñuy indi wuute yu mag yooyu yëpp yëpp pour bëgg place la fii nag mag ñu occupé nañ ko ba pare maam Seydi Hadji Malick jël na li muy jël maam Serigne Touba jël na ñi muy jël maam Boukounta jël na ñi muy jël ci Ndiassane maam Limaamu Laay jël na ñi muy jël bo foo dem rek waa Cene ba foo dem rek jël nañu li ñuy jël ku ku ci nekk ñaa yàlla booleel defar nga leen ba kenn ku ci nekk taxaw ci sharia taxaw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, oustaz euh, Gora am na solo li nga wax foofu ñu gis ni nag euh, mhm. fii ci ci Sénégal guddik gën gi mindeef dinañ ko célébrer foofu ca Tivaouane ca Medina bàyyi ca Ndiassane maanaam mhm. particularité boobu Sénégal am këru diine yu bari nekk fii di ko màggal surtout Tivaouane parce que sànq sax laal nga ko lan moo ko waral lan moo tax gàmmu ji jot na fawma ma dem mhm. Tivaouane lan moo tax gàmmu ji jot na foog ma dem hmm. Medina bàyyi ca kaw Kaolack wala hmm. gàmmu jot na foog ma dem euh, fële ca hmm. Ndiassane loolu lan moo ko waral ndékumba mag ñi dañoo liggéeyal seen boroom liggéey bu leer nañ xam nga tey coow li lu mu bari bari bari boo ñu nee maam Seydi Hadji Malick ñëpp xam nañu zéro faute parce que kenn dégg ko ci ay lu ñàkk fayda kenn dégg ko ci ay caaxaan xanaa ci liggéey nga ko dégg waaye nekkul rek benn buur wala benn euh, roi boo xam ne dafa nekkoon rek occuper nit ñi di leen liggéeyal wala di leen defloo nag su dul noonu. Mm-hmm. xoolal Seydi Hadji Malick li bind ci ay téere. dëgg la téere yëpp boo ci duggee bu ci xam-xam boo xalaat lay ko bind na ci. tafsir na alquran sarxana xadis bind na ci miraas bind na ci arud muy way bind na ci fiqhu bind na ci euh, lépp lu tariqa cheikh bi bind na ci ifhamu munkiri jaani kifaayatu raaxibiin ay téere xilaat zahab li mu wax ci yonent bi sallallahu kenn mësu ko wax état bu yonent bi jaar ba mu jeex xam-xam boobu dafa leer kenn mënu cee weddi virgule. loolu tax nit ñi topp ko parce que dëgg rek lañ soxla rek gis nañ ko ci moom. waaw mu nga dem suñu maam Serigne Touba. lu ko ay sept tonnes cinq cent la yi wax ma ne leen da a juum li mu bind xooj ko ci géej gi xamu leen ko li mu bind taal ko xamu leen ko li mu bind gas ko suul xamu leen ko ma ngi noonu lañ doon def soo ko bind bàyyi fi nag. Serigne Touba tey loolu mu bàyyi ci ginnaawam ku ko yër ak xasaayid yi ni ñu koy drusé lu ne mu bind ci lu ne mu taggal ko yoon mu tagg ko yoon di saa asalaam lu ne mu jox ko suñu borom mais kooku xam nga ne lu ay caaxaan moo tax ñu topp ci nga dem ci kër Baay Ñas. dëgg la moom Abdoulaye Niass mi mi ko jur ak Cheikh Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim boo demee tey ji bitim réew sax ci ngay gën a yéemu ci ñoom ay Nigéria ak yu mel noonu faydu tijaaniya lu ko indi xam-xam bu wér li ñu téere taalif ciy téere ken xamul nu mu toll boo demee Njaasaan noonu moo tax fu foo gis gaa yi daw jëm fa rek xamal ne leera fa nekk foo gis gaa yi daw jëm fa xamal ne yàllaa fa def leeram yàlla moo ni allahu yaalamu xaysu yajaalu risalatahu yàlla nee na sama ngir maa xam fi ma koy def maa ngi seet fi ma gënal fi ma baax fi baax ci man ma def ko fa moo tax ndey kumba mm-hmm. këru diine yi ñëpp daw jëm ca ñoom mm-hmm. boo demee tey jii tey fu mel ni Tivaouane foo maa ngi fi nii sax fa la ñuy waxtaanee macha allah. voilà. Mm-hmm. boo demee fu mel ni Kaolack. Mm-hmm. macha allah boo demee fu mel ni tey ji euh, euh, fu Ndiassane fu mu mënti xam nga Ndiassane bis Tivaouane bu dellusee la ñoom dañuy génte. Mm-hmm. mais loolu. xam nga ni day kumba. Euh, dañuy laal ca am ca ngërëm la. waaye wóor na leen ni Tivaouane li rëg-rëg yi jëm fi fi ne fi may wax a yow ni kenn mënul dem kenn mënul dikk oto yaa ngi taxaw te tey dernier bourdou bi des na deux jours pour di yegg si nga xam ni tey jii macha allah euh, ku mu ci doon ku mu ci mënti doon nga départ jëm si Tivaouane yëgoo naaj bu tàng. Mhm. yëgoo ñàkk ndox moo naan yëgoo ñàkk oto boo dugg ñenn ñi sax ñu ngi dox. Mhm. mais loolu kon nañ ko sant yàlla sant ko Seex Seydi Hajji Malick waaye nag ci mu ko liggéeyal. Mhm. moo ko jar mooy yonent bi sallallahu alayhi wa foofu foog ñu taxaw un peu si Seydi El Hadji Malick euh, tey ji euh, boo ñu doon wax rek en quelques minutes euh, Oustaz Gora kan mooy Seydi El Hadji Malick Sy ah ndey ma nag laaj yi doon laaj yëpp bii moom la si gën neex <laughs> yëpp neex na waaye bii moom mhm. question spéciale la dëgg la donc day laaj tontu spécial mhm. maam Cheikh Seydi El Hadji Malick mhm. radiyallahu anhu dafa nekk koo xam ne yàlla moo ko préparé boppam. Mhm. ndax way juróom maam Ousmane la tudd maam Ousmane si maam Ousmane boroom xam-xam la woon wàllu yàlla la woon bi nga xamee ni maam Cheikh Seydi Hadji na gane si àdduna dañ ko wan maam Ousmane mi ko war a jur wax ko tamit soxna si mu war a jël maam Ousmane jóge ci saw bi jëm ci penku bi temps booba nag ay raison amagul comme ñu naan la région de Dakar la région Saint-Louis bi mu demee ba Gaaya fi nga xamante ni Maam Seydi Hadji Malick la dëkk mu dal ak yàlla bu ñuy wax Alpha Hima Yoro Wele te mu kooku ndijaale ci Seydi ndax moo maam Faa Wade mi jur Seydi ma Malick maam Faa Wade Wele ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay moo tax ma lay indil histoire bi ca départ ba. dëgg la bi ñu ñëwee moom mu def tarbiyaam nekk foofu ba yàlla dogal mu gisanteeg maam Faa Wade yàlla dogal mu daal seeti maam Alpha ndax boobu war nañ ko ni ko moo war a jur Seydi Seydi Hadji mu daal di waxtaan ak maam Alpha ni ko sa jigéen bii dama ko bëgg. Mhm. maam Alpha maam yor yor daal koy may. mu daal di nekk moom ba yàlla def mission jeex mu war a dem te moom xamaloon nañ ko ni ko nga jur wàllu yàlla bi da ci yow lay jaar waaye nag doo fekkee juddoom muy leen jaral na ma ko. bu demee ba mission bi jeex mu war a continuer di ñëw ci maam Alpha Sane ak moom daal di ne ko léegi sa jigéen bi dafa tollu diggante man nag maa ngi dem waaye su yàlla defee mu yeweeku doom ji di góor nañ ma ko tuddee na Malick saw sama sëriñ bi nga xam ne moo ma jàngal alquran <laughs> gis nga de. dëgg la daal di dem bi mu demee bi ma Seydi Hadj Malick gane àdduna am Alfayda Mayoro Wele daal di euh, tuddee ma Seydi Hadj Malick la ko waxoon mooy Thierno Malick Sow mhm. loolu indi Hadj Malick bi mhm. waaye nag ni ni mhm. bi ñu waajuram bu jigéen Mame Fawade bi nga xamee ni may nañ ko borom kër suñuy nopp dëgg la ñoom ma alxaayma yoro wele ñoom rijaay seen xaaj Maalik nga xam moom moo ko maire bi ñoo bokk ndey baay booba Cheikh Omar Fouti Taal moo fi nekk ñoom ñu jógee gaayee di ziyaare ci Cheikh Omar Taal bi muy dem maam faa waat génn benn sëru dënk sër ba temps yooyu sër yooyu ñoo gënoon a cher mu jox ko euh, moom alxaayma yoro wele ne ko boo demee jox ko Cheikh Omar Fouti yi ne na ma ñaanal ma am doom ju baax ba mu demee gis nga bi mu ko joxee Cheikh Omar dafa génn xalwatu ñu jox ko ko rek am na sax ci histoire ñu ni xër ba dañu ko jaayoon ci yoon bi ndax bagage yi nu yoroon dafa bari ñu ci yoon wi ñu wàññi bagage yi jaay ko jënd ci benn loo looy loo mooy mooy nag bu ndaw pour sëf ci bagage yi mën koo yóbbu bi ñu koy jaayee nag xër ba bokkaale ci bi maam bi maam faa wadd yaay Seydi Hadji Malick joxe woon bi ñu ñëwee ba egsi Cheikh Omar Fouti génn rek ni ana alpha moo mu ne ko maa ngi nii te mosu ñoo gisante xamu ko waaye wax nañ ko ko ci xaloo bi mu nekkoon mu ne ko anama ma mu ne ko maa ngi nii mu ne ko alpha sama sër bi sama jigéen bi jox mu ne ko mi ngi nii daal di génn beneen sër benn sër jox ko mu ko déedéet alpha du jox ma sama sër mu génne beneen kër ci ne ko déedéet alpha bii du sama sër alpha doo tëdd ci la te joxoo ma sama sër tey tey maa alpha daal di xalaat daal di ne ah, ba nu jaayee kon bagage ci yoon wi sër ba ca la topp daal di delluwaat topp guddi gi dem ba fa nu jaayee woon bagage yi mu laajte ba gis ko jënd bagage ya mu wër ba gis ca sër mu jëndaat ko ci moom indil ko Cheikh Omar Foutiyou Tall jox ko mu ne ko waaw kay bii mooy sama sër waaye ndey kumba mm-hmm. Cheikh Omar Foutiyou digg naa fi mu toog dafa jóg jublu penku tàllal sër bi mm-hmm. daal ni fuuta moo la maa tirim fuuta ñetti yoon ñu ko la bayka taal mu ne gis ngeen borom sër mooy jur wàllu wi yàlla indi ci jamono boo xam ne leeram fii ma taxaw man Cheikh Omar ba ca doj wa ca ngor mooy yaa ngi xam nga làmp ngor bi di bi bi bi euh, euh, guide avion yi bu ñuy wàcc. Mm-hmm. làmp bi ne ca doju ngor wa xam nga ko. waaw. Cheikh Omar nee ma taxaw Fouta ba ca làmp woowu ca ngor. Mm-hmm. moom fa mu yem Seydi Hadj Maay mooy jële mission Fouta ba sóob ko ci ci ci doj woowu ci géej te booba juddoogul mu seedeel ko loolu. dëgg Ekumba. Mhm. kooku nag. Mhm. mooy Cheikh Seydi Hadji Malick bi mu juddoo. dëgg la ci suñuy nopp. Mhm. fekk ñu jox fekk nañu defal ko euh, Ijaza Ijaza mooy tariqa tijaan bu ñu la ko joxee. nga liggéey ba war cee nekk muqaddam dañ lay Ijaza bind Ijaza jox la wan la ni yow am nga ndigalu maye tariqa bi Seydi Hadji bi mu judd fekk na waliyu kaamil woowu di ndijaayam defal ko kii bi Ijaza bi. defal ko itlaq defal ko itlaqul itlaq yooyu nag ay secret la <laughs> du ci xóot. kooku bi muy judd fekk nañu defal ko loolu ba pare. dëgg la. mu soog a ñëw nag ak li mu liggéey Seydi Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne tey moom moo gàddu risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax risaala bi dañ ko xaaj ci digg bi Cheikh jël benn euh, xaaj euh, Cheikh Abdou Qadir Jilani jël benn xaaj Cheikh Tidiane Seydi Hadj Malick liggéeyal ko ba Cheikh jàpp ci loxo Seydi Hadj Malick dem présenté ko yonent bi sallallahu a wa sallam ni ko kii moom a defal lu ma kenn mës a defal ndax fi mu yóbbu tariqa bi. réew yonent bi yaa ko jox yaa ko fi mu ko yóbbu kenn mës ko faa li mu ci def ci sunna li mu ci def ci ay ngëneel li mu ci yokk ci ay mbaax amu ci woon kenn defu ko ci woon parce que wasifa subaa nga seen xaajumaay ko ci andi yonent bi ni ko sumil sa mbubb seen xaajumaay wag mbubbam yonent bi ni ko teg ko wéer ko ci sama ginnaaw mu wéer ko ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di ko bomb di ko bomb di ko bomb di ko ko neexee mu daal ni ko acca jeex na ni ko ni ko ni maa la ko cërale ndey dëgg la kooku mooy sax Seydi El Hadji Malick xam naa instant bi ñu bari euh, ñu ngi daanu leer de oustaz euh, <laughs> Gora <laughs> euh, ci ni ñuy xamale kan mooy uh-huh. Seydi El Hadji Malick Sy borom Tivaouane ah, nga xam ni actuellement ñu bëri fa la ñu jëm ngir màggal guddik yonent bi Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mais tamit uh-huh. dinañ taxawaat ci keneen ku am solo ku nit ñi bëgg trop fii ci Sénégal bokk uh-huh. ci njabootu Seydina Seydi Sy di El Hadj Malick Sy di mhm. Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu bëri mhm. bëgg ko euh, mhm. këru diine yëpp bëgg ko euh, jullit yi bëgg ko chrétien yi bëgg ko euh, nga wax ñu tuuti ci Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ah day kumba question bi gën a tinaa encore xam nga boo jëlee maam Seydi Hadj Malick dafa am ay takk ndeer maanaam tey moom Seydi Hadji Malick njabootam yooyu ñooy mm. wane kan mooy mm. Seydi Hadji Malick mm. boo déparé ci Seydi Hadji Malick rek taawam ñu ngi koy wax Seydi Ahmed si maam Seydi Ahmed Sy moom saloon la sa guerre ba moom moo demoon guerre bi dellu suur waaye sëñ Babacar si topp ci defe tamit sëñ Babacar xam nga ni macha allah borom may la. dëgg la. Euh, sëñ Babacar Sy macha allah moom itamit bi mu jëlee ndax moom. dañ ko proposé sax pour mu remplacer Seydi Hadji Malick mu bañ moom sëñ Babacar ak xoolal xilaafa ni mu toll. Mhm. waaye dafa bañ daal ni Seydi Hadji Malick ni ko ci condition Seydi Hadji Malick ko ban condition mu ko mooy li ma leen di yoral kenn du kenn du ma xam ba keroog ma fiy jóge Seydi Hadji ni ko d'accord mu daal di summi mantoom moom sëñ Babacar moom moom Seydi Hadji Malick. Mhm. solal ko sëñ Babacar si. ne ko ginnaaw bis ñi tey borom tariqa beeg seeni borom daal jox nañ la tariqa bi tey yaay a cheikh comme nag remplacé nga ma te man génn gu ma àdduna bala may génn àdduna comme yaay xalifa cheikh foofu ma jox la addiya xam nga ni kon kooku garaatam rëy na. dëgg la. sëriñ Babacar. Mhm. daal di summi benn manto moom seen xaaj maay solo ko sëriñ Babacar si. Mhm. moo tax alaaj mbay doon way na ko ci benn woy wolofal wax ni Maodo Seye bindoon ndigalam ci loxol ku baax ku ñu xam sëriñ Alioune Guèye ko seen xaaj maay moo waaw mu ni sëñ sëñ Xaaj Maalik moo ni sëriñ Babacar moo koy doon. dëgg la waaw mu ni Maodo Seye bindoon ndigalam. Mm. ci loxol ku baax ku ñu xam. Mm-hmm. sëriñ Alioune Guèye ni donoom. Mm. Seydi Mbaye si jël na ko. Mm-hmm. Maodo nee na alpha ko ko jox maanaam Maodo nee na. Mm-hmm. tarixa bi maanaam alpha yi ma yor moo ko jox. Mbaye si nee na aasa ko jox sëñ Babacar si nee na sëñ Xaaj Maalik moo ko jox. kon ñoo ngi toog di xaar ku mu jox moom sëñ Babacar foog ci sànni seede ko ndax di njortu dee su ko foog. dëgg aasa Mbaye ki bind waangu fi daptu la jeeg Seydi Mbaye Sy jël ko kon nañ ci mooy te nañ ci dëgër Babacar Sy mooy ki ko jaar te billaay nitam ko ko kara soo walloo nga bàyyi ko. Mm-hmm. boobu laa la ciy wax ooyu gën naa gudd. dëgg la neex na léegi nag. Mm-hmm. sëñ Babacar diis randu rek ñu jox Alaaji Mansour moom Alaaji Mansour doomu seen i xajmaali moo topp sëñ Babacar. Mm-hmm. waaye moog sëñ Babacar rawante lu ma rawante wuñu une semaine sëñ Babacar dafa génn àdduna. altine talaata àllarba alxames. àjjuma euh, samedi wala ci dimanche ji noonu daal bis bi daal del si wala ci bis dafa del si bokk maam maam Mansour topp ci maam Mansour moo jur tey sëñ Mbaye Sy Mansour mi nekk tey ak xalifa ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye moom defu ci xilaafa ji une semaine bi mu demee nag moom maam Mansour xamoon na ni euh, maam Abdou da baax mooy borom xilaafa gi moom def ko daan wax lu bëree bëri di ko soññi di ko wan yoon ba ci Abdou arini xal jox ma sa nopp wala jox ma sa xol ma dénk la di ko wax ni bul rëy rëylu bul euh, euh, laaj nit ñi seen alal bul soxlaal kenn dara na mën a muñ na nga mën a di ko dénk daal wan ko ko flambeau bi yaa ko war a yor moo tax moom Mamoune Sour bi jur xalif général de Tidiane tey moom deful une semaine ci xilaafa gi Maam Baye Aziz bi ngay laaj nag soo ko si nag borom 40 ans zéro faute. dëgg la Maam Abdoulaye Dabakh. Mm-hmm. ñu bari sax bu ñu nee tabax dañ naan dañuy jàpp maam Abdou Aziz dafa baax la ñu bëgg a wax. Mm-hmm. mais déedéet ki ñu ko tuddee moom tudd Abdou Aziz da baax. Mm-hmm. da baax li muy firi mooy wullikatu der. Mm-hmm. deru xar yi ak deru nag yi nga xam bu ñu ko bu ñu rendee nag bi ba pare ñu jël der bi yóbbu ko ci kii bi di ko sëbëj di ko wala dugal ko ci machine wulli ko ba nga xam bu ñu paree defar ci dàll wala defar ci saak. turandoo Abdou Aziz da baax loolu la daan liggéey. léegi nag nekkoon wàllu yàlla di dundee ñaqam nekk ku baax nekk borom xam-xam Seydi Hadji Malick fonk ko ndax téere yi mu bind ba tax mu am ma Abdou da baax tuddee ko ko. Hmm. loolu mooy indi Abdou Aziz Dabakh. Dabakh. Hmm. waaw waaye nag tur yi dafa boole ñaar d'accord Dabakh. Hmm. mooy borom turo waaye ñëpp naa Abdou Aziz Dabakh maanaam dafa baax. dafa baax ku baax daal <laughs> <laughs> ku baax la waaye xam nga lu ko ko may. yoon. lu ko ko may mbaaxam. coono bi Seydi Hadji Malick sonn ci moom. Euh, moo ko ko may. Mm-hmm. Maam Abdoul Aziz dégg naa bi mu gënee àdduna maam Seydi xaj ma daf ko daan teg ci kawam teg ko ci poojam ndeysaan. Mm-hmm. taf ko ci dënn bi di wax ni ah sama xeeboon bii de bu màggee bu ko fi yàlla bàyyee lu ma naqari woon ci diine ji waa lu ma ci matalul woon ko matal defe naa loolu leer na def na ci lu bëree bëri. dëgg la waaye Maam Abdoul Aziz Dabakh boole ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ndey kumba li mu woy yonent bi sallallahu mm-hmm. na yaatu na waaye xam nga ma la ci jox mm-hmm. inna xubba nabi xaalata laxmi mm-hmm. wa isaami wa dama duna riyaayi maa daal di bëgg gi ma bëgg yonent ak sopp gi ma ko sopp nee ma ma yëg ni fa nekk sama yaram ci benn place xaalata laxmi dafa jaxasoog sama yàpp yaram mooy bëgg gi ma bëgg yonent bi gi ma ko sopp dëgg la wa isaami yàpp bi bu ca jógee dugg ci biir yax yi <laughs> ah waddamma bu jógee ci yàpp weeg yax yi dugg na ci biir deret ji duuna riyaay te li may wax nii maa bi ne du ngistal mooy dëgg ci man yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ku ko soppee noonu bëggee ko noonu ba moo daj sa yàpp yaram daj say yàq dugg sa biir dara mais yaa foog yàlla fay la loolu la ko yàlla fayee kooku mooy Abdoulaye am na solo encore xam naa daal euh, ah. taalibe tiijaan yu bëri tey dinañ kontaan ci Oustaz Gora. Oustaz mm-hmm. Gora encore peut-être dernière question buñ lay laaj euh, moom mooy <coughs> force tarixa Tidiane lan moo ko mm-hmm. waral maanaam dooleek tarixa tiijaan surtout fii ci Sénégal ak tamit ci bitim réew. xam nga tariqa tijaan force bi ñu am mooy mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> baale ma dama xaw a kii tuuti. <laughs> dëgg la. <laughs> xam naa kilim beer sax ak euh, ngelaw bi. waaw jéggal nañ la ko. Kumba. Mm-hmm. Mm-hmm. tariqa bi mooy tariqa bi yàlla suñu boroom moo ko créer boppam. jox ko Seydina Jibril <coughs> alayhi salaatu wa salaam mu ñëw jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ko Cheikh na Tijaan yi ne na ko doxal moo tax Cheikh ci boppam daf daan wax ni tariqa bi man taalibe laa ci ndax yonent bi sallallahu alayhi la ko yàlla jox mu war ko diriger tegaat ko ci sama loxo looloo tax euh, bi nga xamee ne <clears throat> jamono yu di ñëw li gën jamono liggéeyee liggéey boo war a jot martaba yi mu war a jot booba waliyu yàlla bi fi rawoon ci àdduna bi ñu ngi koy wax Muhammadul Kurdi yi Muhammadul Kurdi yi moomu Cheikh di wër di wër di wër ci martaba yi di jël di jël ba sës ci Muhammadul Kurdi yi keroog bi nga xamee ni Kurdi yi gis na ko rek dafa daanu leer. Mm. waaw daal di ni kii ma gis day wax dëgg yàlla nitu yàlla la te xam naa ne mooy wali yuy war mu euh, ñëw ci jamono daal di gaawantu cheikh ñëw rek mu jox ko tariqa jox ko lépp lépp luy martaba bu mu war a am ci bu wàll yi war am ko bi mu ko wajee ci bis bi ndey kumba mm-hmm. ci bis bi la cheikh egsi mu jox ko yépp ci bis mu def ko muqaddam def ko euh, cheikhu tariqa def ko lépp lépp lépp lépp ci guddi gi cheikh tëdd rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam jimet ci kanamam <laughs> ni ko lii la cour di jox yëpp dellool ni ko lii la cour di jox yépp mhm. delloo ko nekko ko Cheikh li ma la dencal di la ko jox mu ëpp doole lii la cour di xanaa cour di xanaa xamoon cour di lay doon ci yaw dëgg la xanaa xamoo man maay sa waajur maa la yar ah man sama doom nga bi ci des maay sa gidd bi lay wan yoon wa Cheikh abarlu si xaaj bind ko. daa dine wa baadama qaddamahu kurdiyu raa nabi Moustapha safiyu keroog bi nga xamee ne Mouhamadou kurdi yu xaddamal na ko jox ko yooyu yëpp raa ca la gis ca guddi ga nabi Moustapha safiyu mm-hmm. lu mu ko wax wa qaala utruk jamia ma bi agasta xata tafuuza kulla ma waadta wala waidta waaw mu ne ko euh, utruk bàyyil dellool ah jamia ma agasta lépp loo xamante ni kur yi joxoon na la ko nga jël ko xataa tafusa boo ko bàyyee di nga romb kulli ma waata fu mu la diggoon di nga fa yegg da romb foofa ndax moom fi mu yem ci martaba yaa koy romb kon sa taalibe lay doon léegi nag cheikh daal di dégg ndigal la delloo yëpp yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko anaamu rabbika cheikh xanaa xamoon maa la yar wante wala di cheikh xanaa xamoon yow sama njaboot nga wa cheikh ko abarru man maay si sëriñ bi gën a baax ci sëriñ yi ku la mus na di koo wéeru rek man cheikh maa ëpp doole man yonent bi maa ëpp doole ci yow ci moom cheikh keroo la delloo yëpp wéeru ci yonent sallallahu alayhi wasallam ñu jox ko tarixa bi directement kooku bu amee loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam coaché ko jibril ñoo coaché yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. yàlla coaché jibril muy ndeef yi yàlla mm. coaché gars yi yëpp mm-hmm. xam nga loolu du mën a ñàkk doole kon force tijaaniya foofu la foofu la doole jee tax nag mm-hmm. ñëpp séddoo ko dëgg la boo demee tey jii Seydi Hadj Malick la mu ca yor boo demee tey jii Cheikh Hadj Omar Fouti Tall la mu ca yor boo demee tey jii la ca suñu suñu maam Cheikh Islam Hadj Abdoulaye Niass yor boo demee tey ci Algérie fekk ko fa boo demee tey ci Maroc fekk ko fa boo demee ci Pakistan fekk ko fa boo demee ci Arabie Saoudite sax am ñu nga fa foo dem ci àdduna bi tijaan yi ëpp nañu milliard donc loolu nag day wone euh, leeraay bi nga xam ne moo ci nekk ci nuraaniya day wane xam-xam bi nga xam moo ci nekk waaye day wane dëppoo bi ñu ñuy dëppoo alxuraanu karim parce que cheikh bi ñu ko laajee tariqa bi ak ya daf ni lu leen ni cheikh nee na ku leen ni cheikh nee na. Mm-hmm. la mu wax natt leen ko ci alxuraan sunna su fekkee dëppoo na ak alxuraan jël leen jëfee xam ni maa ko wax. Mm-hmm. waaye bu ñu leen nee cheikh na ngeen natt ko mu wuuteeg alxuraan li yàlla wax sànni leen ci àll ba du man cheikh waxuma ko. bu mm-hmm. wuuteeg sunna yàlla sallallahu alayhi wasallam leen ci àddu àll ba man kon léegi ma lii lu leer la. lu leer la Oustaz euh, Gora xam naa waxtu bi dab nañu foofu la ñuy tàggatoog auditeurs yi. Euh, ma hmm. bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi xam naa ñu bëri moom. Euh, hmm. ci taalibe tiijaan yi tey seen xol eh. tooy na dinañ kontaan si yow bu baax a baax góor a Diop kon ma bàyyi nga tàggatoo. jërëjëf soxna Ndeye Comba tàggoo bi rek moo ñaan yàlla subhaanahu wa <clears throat> ñi nga xam ne ñoo ngi defar seeni bagage di gàmmu moo xam Tiwaawan la ñu jëm moo xam Njaasaan la ñu jëm moo mm-hmm. xam Kaolack la ñu jëm mm-hmm. moo xam Touba la ñu jëm fu ci waay jëm rek yal na yàlla yóbbu la ci jàmm ak salaam ba cene ba amiin amiin ba Thiès ca suñu ba kër maam uh, Ahmad Borom Jigéen amiin fu ci waay jëm ndey Kumba yal na yegg tamit lu mu fa ñaan yàlla ci màggaleen bi sallallahu alayhi na ko yàlla nangu amiin ndey Kumba gi yal yàlla jaare ci teggil jullit yépp coono. amiin nekkuma ñun suñu mag ñi rek la ñu am. dëgg la suñu mag ñu baax tey mhm. dañuy tiitaroo dañuy maam Serigne Touba. Mhm. xoolal li mu bind di wàllu yàlla ah, du loolu kooku du ko ab tariqa di moom. Mhm. Serigne Touba murid yi kese moomuñu ko xamuñu sax li xew. ñu bëree bëri xamuñu li xew. dëgg la wàllu wu liggéey ba yàlla fay ko la. su yaatu woon tey naa la wax li mu bind ci guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. wax ko ci gàmmu lu leer nañ ñu macha allah digal ñëpp ko taxawee. nga dem Ndiassane suñu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta noonu la taxaw di sëriñ Yonent bi sallallahu alayhi lu nekk mu liggéeyal ko yàlla ba yàlla fay ko nga dem Ceneba suñu kër maam Amari Ndaak Seck mm-hmm. lu nekk mu liggéeyal ko suñu borom ba tey ji Ceneba boo demee da ngay defe ne foofu rek ñooy gaaw nga dem Medina Baye maa ala Abdoulaye Niass nekkoon wala Seydi Hadji Malick nekkoon wala Sëriñ Tuubaa bàyyi fi doomam ji Cheikh Cheikh al Islam maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñooñu ñëpp ba ci maam li may li maam la almahdi boobu ci ci yoof dañuy gaaw ñoom kon day kumba ñun nañu xam li ñu am lan la. dëgg la nañu xam Sénégal li mu am chance bi lan la nañu profito li fi mag ñi bàyyi ñu dundal ko buñ ko defee yàlla teggal ñu coono yi waaye bu ñu yaakaaree ni tijaan yi rek ñoo moom Cheikh na tijaan yi wala ñoo moom Seydi Hadji Malick. Mm-hmm. juum nañu te am nañu erreur bu rëy a bu ñu yaakaaree ñoom rek ñoo moom Sëñ Tuubaa. Mm-hmm. juum nañu laayeen yi bu ñu yaakaaree ñoom Baay Laay juum nañu. ñesee ni bu ñu yaakaar ñoomu Cheikhul Islam juum nañu ñooñu tariqal tariqa yi fi nekk yëpp yàlla moo leen defar yàlla moo leen wal ba mu nekk benn coupé mu jox ko ma ñu séddale leen ko waaye mu ngi jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma jox la rek benn am exemple. Mm-hmm. Serigne Touba bi ko laajee <clears throat> ci wàllu tariqa daf ni leen weer yi ngeen di yi ngeen ci am tariqa yi yëpp weer weer di leer la weer yooyu yëpp ci yàlla la jëm ku ko ci yor nag kon na ko sellal. ñu ko Mbàkke bindal mu ne wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walam yaxida sawaun intama ila jaylaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi iz kulluhum qataan ala sawaabi sëñ Tuubaa ne weer woo ci jël moo xam Cheikh Tijaan la jóge moo xam ci Jaylaan la jóge boo ci yor yor ko ndax yëpp ci yàlla jëm ak beneen wër wàll bu la mën a jox fii nag ci Tiwaawan Seydi Xaaji Maalik radiyallaahu taala anhu liggéey fi liggéey bu rëy boo xam ni Tiwaawan dëkku ceddo la woon mhm. Tiwaawan dëkku caaxaan la woon Tiwaawan dëkku noos la woon naani sàngara dóor ay ndënd fecc dans loolu rek moo fi amoon mhm. Seydi Hadji Malick ñëw dindi loolu yëpp ba sam fi naa Seydi xaq bi xaq tey ji Tiwaawan dëkk yi gën a développé ci àdduna bi waxuma Sénégal da ci àdduna bi ci la bokk mhm. boo ñëwee tey ji gars a ngi ci courant bi nee leen suñu chance mooy gàmm gi gàmm defar dëkk bi dëgg la bu ñu dul woon gàmmu tey jii li ñu am ci ay euh, tali duñ ko am. Mm, li ñu am ci ndox tey mm. ay kilomètres kilomètres fi mu ne nii am nañ ko ndox am nañ ko courant lu ko def leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyu jëwrinam maam Cheikh Seydi Hadji Malick kon daal day kumba. Mm-hmm. Seydi Hadji Malick moom amuñu sago buñ ciy wax duñu mën a. allah <laughs> am naa ko bu baax sax waaye ñu ngi ñaanal ñëpp. jàmm ak Euh, yal na yàlla taxawu leen mais particulièrement yow nag Ndeye Comba suñu jigéen nga suñu xarit nga. dëgg la vraiment nekk euh, xale bu baax macha allah. Mhm. Euh, defe naa man ak yow ñi ñi ñi sos réew mi FM ci lañ bokk. ci lañ bokk waaw. defe naa première photo famille ba ba léegi boo xoolee. gis ci fukki at boobaag léegi 2012. ba léegi fukki at macha allah <laughs> nga nekk ko am coloré. toujours looy def yaa ngi may associé. la man aussi lu ma la nga taxaw ci macha allah. Mm-hmm. ba tey ji télévision bi ñëw na. waaw ah léegi dañuy ñaan yàlla yàlla taxawu leen. mais taxaw nag le président. Mbagnick Diop macha allah ñaanal ko taxaw ko jàppale ko. Mm. ba fi mu bëgg a yegg ci tasaare diine ji. Mm. jàppale sénégalais ci information yëpp yal yàlla may ko yegg fa. amiin la. amiin mi ngi ci forum de premier emploi. mi ci Africa Research Award mi ci corridor. lépp rek pour jox mm. nit billaay macha allah xam naa ne loolu ñun ñi nga xam ñoo ko nekk ci wetam xam nañ ma hmm. nañu ko seede. dëgg la dëgg la nuyu doomam moom tamit ñu taxaw ci jaar ci tànk yooyu yàlla na ko yàlla taxaw. amiin mais ndey Kumba nuyu équipe yëpp rek techniciens yi ñoom Léon ñoom Diaw bàyyiwuñ kenn. Hmm. mais encore encore une fois daal ndey Kumba ñu ngi renouveler suñu cofeel ci yow suñu engagement ci sa vraiment di la jaajëfal di la sant bu baax a baax. encore une fois nga bokk ci nit ñi nga xamante ni mhm. pratiquement ñëpp leen bëgg ñëpp ñëpp leen bëgg fii ci ci ci rajo bi ci Rewmi <laughs> TV Ousmane Oustaz Gora Diop bokk ci kër gi nekk ku baax mhm. macha allah. Mhm. di la remercier ci sa disponibilité euh, di la remercier tey ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nga ko euh, ci guddi gu am solo gi di gàmmu màggal euh, ganex àdduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Oustaz Gora ñu ngi lay remercier bu baax a baax di remercier euh, suñu mm-hmm. auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi 10 heures ba 11 heures euh, kon mm-hmm. ba samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission euh, mm-hmm. beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf